c'est la référence. salaamaaleykum mbokk yi dalee nag jàmm ci xibaar yi yéen itam la 90 international bu ngeen taaxiloo tuuti rek ñu jukki leen di ci gën a fës dañ koy door rek ak jéye bi am léegi léegi nii ci suba di ab accident bu métti métti bu am fii ci Kaolack ab a vidange moom moo daal di mbëkk rek benn borom Jakarta mu daal di ñàkk bakkanam ci saa si mbir ma nag amee ca école Jalañ jàng ci jokkoo ak suñu ndaw ci Assane Cissé léegi léegi nii ci kanam sàcc kettu nag ba ñu euh, rek ca diwaanu Nioro coow la jeexagul. ba léegi kuréel ga jiite ñay xeex mbiru càccum jur gi ña ngay sàkku rek ci nguur gi ngir ñu bàyyi Adama Keita ma ñu ci teg loxo bu fekkee ni bëgg ci réew mi ay doomam bañ nañu bay wut ku leen bañ leen ne dootuñu nangooti ku leen di noot ak di foyee seen ak alal taxawal nañu ab kuréel duppee ko alliance des leaders de njaafaat daa ngeen ci dégg Noa Biaye ci wowle waxtu askanu Sahara ñoom ne la watuñu ba yandoor ndax tiitaange ka njàqare ci filu courant haute ba fa ngelaw li daaneloon keroog àjjuma ba léegi ña ngay wuti pexe laata moo jur jëyee daa ngeen ci dégg Cheikh Babacar Dieng école arabe El Hadji Abdoulaye Niass liggéey baa ngay dox na mu waree caabi yi daañu ko joxe weer rek décembre président Serigne Boub ma fa amaloon ab doxantu doon soññu liggéeykat ya ma ko xam ne daa ko dégg ci biir euh, xibaar yi te bitim réew daanu fa fekk Cheikh Tidiane Sarr tàggat yaram daan ci ànd ak Serigne Moussa Kane li yëglikaay yi xëyee tey ji mbiru El Hadji Seydina Omar Cissé bi lay doon. Le journal. Ndeye Khady Sadio. jàllee nag jàmm ci xibaar yi kàddu gi di bàyyeekoo fii ci meuble Cheikh Imam Assane Cissé studio Alima Mor Lo koddu sekk madame Keneme moo jonok man ci wàllu xarale léegi ba dégg-dégg bi mën di leer nañ leen ko waxee noone lañ koy dooree ci ab accident bu metti metti bi nga xam ne rek am na la ñuy jokkoo ak Assane waaw waaw Assane waaw daal di xam ne askanu Kaolack ak rawatina dawal ko ci Jakarta yi ak ñi nga xamante ne ñoo dëkkee fii ci Jalañ fii mu méttee métti la ñu daal di mu moo xamante ne mbir mu doy waar mbir moo xamante ne mbir mu naqaree expliqué wax dëgg yàlla ak gone goo xamante ne mu ngi tolloon ci lu wala tollu ñaar ci at wala dix-neuf ans moo daal di ñàkk bakkanam ci saati ki nga xamante ne moom moo di boo ñëwee ba ci école Jalañ faate ko tuuti ci aara Jakarta bi gone bi nag dawalkatu Jakarta la woon boo xamante ne nee nañ ci vacances yi la jël li nga xamante ne moom moo di Jakarta bi di ci liggéey bi mu ngi baaxoo ko woon mu mbiri na mabba ba mu ñëwee ba fi nga xamante ne boo passé école Jalañ daal di jàkkaarloo benn camion li waral jàkkaarloo bi nag mooy da doon moytu benn saret ba muy génn saret bi di koy doublé ci la ko camion bi daal di dóor ba yéeg ci kawam xale bi daal di faatu ñàkk bakkanam nday xat yi loolu moo fi am wax dëgg yàlla mu nekk mbir moo xamante ne lu doy waar ñenn ñi nag ñu ngi naan mënoon na ñàkk ndax ñi nga xamante ne ñoom ñoo di euh, sapeurs yi na nañu yéex a ñëw lool ndax mbir ba mu amee dafa xaw a yàgg ba mu tëddee ci tali bi yàgg na ñàkk deret bu bëri tax mu daal di faatu mu ngi noonu moom xale bi nga xamante ne moo ñàkk bakkanam mairie Namba ba la dëkk nee nañ dawalkatu Jakarta la ñu ngi leen di ko muur dara bu weex Euh, sapeur ak police ñoo taxaw ngir daal di def li nga xamante ne moom moo di constat bi ñu koy yëkkati mbooloo jamono ji dañu fees dell ci tali bi borom jakartaa yi daal di am leen naqari lool yaa ngi dégg ci ay kàddu ngeen di yóofu di yëkkati turu yàlla allahu akbar ndax dañu koy yëkkati moom xale bi oh, bu mu sonq la xol benn tubéy boo xamante ne dafa am lu xonk ak lu ñuul ñu ngi koy yëkkati ngir teg ko ci li nga xamante ne moom moo di filière bi nday xadi daal loolu mooy li nga xamante ne moom la askanu Kaolack yeewoo tey na gox bi nga xamante ne moom moo di goxu Jalañ boo jógee Medina Baye di ñëw fi nga xamante ne moom moo di ci stop bi doo ngi noonu nañ koy defee rek saa su muy l'information à chaud et à temps muy l'accident bi am ci boru école Jalañ daan ci euh, nag euh, ci suñu yeneen jotaay xibaar waxtaanee rek mbiru l'accident yi ba léegi yokkute lii mu ña seen bakkan ci euh, tëli bi ci diggante atum 2019 ak 2020 tolluwaay bi nag moo di téeméer boo jël fukki nit ak juróom-ñaar ñàkk nañ ci seen bakkan muy nag lu jaaxal ñëpp soxla nag ñu def jéego yu am solo ci Euh, mbiru rek euh, coppite jikko yi di comportement ci fànn boo jël rawatina ci ñi nga xam ne rek ñoom ñooy chauffeur si njàngat li ak soxna fàttu Fatou Cissé ab chauffeur buy dawal te teg ca wetam ab bool bu dee fa lu niroog maafe wala sax domada bulet daggati lu ngam nag ca digg ba chauffeur ba ca boppam di tibb di seex tey dawale benn loxo vidéo bi circulé jamono jile ci internet bi di fasalati ab comportement bu ay sénégalais yàgg a joytu di maanaam lu neex waay def weeru mai bi ñu génn ci ab ndaje jëm ci sécurité routière njiitu waa division sécurité routière bu kër ginu dénk lépp lu jëm ci transport routier doon fësal nag ay chiffres yuy wane ne Sénégal atum 2017 jàpp 2020 lu mu néew néew 3000 di ñetti junni doomi aadama faatu nañu ci tali bi benn ñaar. ñett ba 3000 di ñetti junni doomi aadama ñàkk kon seen bakkan diggante 2017 jàpp 2020 ci ay accident 2020 lu ko jiitu ba tey accident yooyu nag di wéy di am ci tali bii néew na lu bës di romb te xibaar du jipp jëm ci ab bilan buy jur bakkan yu rot ndax accident yooyee kon ci kaw tali bii bakkan yuy rot waaye tamit ay gaañu gaañu yu métti am na sax ñoo xam ne fa la ñuy jaaree seeni cër manqué ba faw ñeneen jëlee ca fit dul toog ba ci sax xel mu dem gàllankoor ya muy jur ci wàllum koom-koom di leneen loo xam ne ma nga ca conséquence accident yi yile di wéy bés bu ne ci tali bii nes mën a def nag ba constat yi wàññeeku ba ñakk ndax prévention di fàggandiku gi ab laaj la fii la ci mim réew nag mënee su la wax accident ñaare te comportement du ca bokk la koy dindi du kon ay wax waaye ay jëf yu mat sëkk la. mais ko def tey ci li xew démb li xew démb mooy accident bi accident bi ko waral mooy négligence émergence mënul am ci indiscipline émergence am fi nga xam ne ne foyer de corruption la. ak fàttaliku du ñu yóbbu ci kàddu yi mu fi bëraloon na file ci Kaolack ñi ngi ci atum 2017 moom homme politique bi la di Mamour Cissé gannaaw accident ba amoon alxames sa ñaar fukki fan ak juróom-benn. ci weeru janvier ca village Bale di Sagna te nekk ci diggante Malem Odar ak Kaffrine te juróon ca saasa nag faatu ko fukki nit ak benn ñeneen am ca ay gaañu gaañu yu métti. émergence mënul am ci nga xam ne ne respecté tuuñu te respect mënul passé nit ki di dajak dajaje la mu am ak lu mu amul pour dundoon njabootam mu teg ko yëpp am confiance dugg ci oto ay irresponsable feesal oto bi ba maara détail mais li ma ci naqadi kooku mën na ko sax def ndax cupidité ak tuutuwaayam waaye nga nekk ci état boo xam ne ne dafa war a aar population jàngal population faj ay population nga am ay forces de défense et de sécurité ñu mën a bàyyi ay oto yu ñu lay romb nga mel ni fexe ba néewal constat yi te jëmale mbir mi nak ci prévention kon di fàggandiku gi diisal daan yi jëmale ci yenn comportement yi ci tali bi laata sax ñuy wax accident waaye ci lu police ak gendarmerie nag di nangoo feelu kon ci fànn yépp changement rek mooy liy mën a dakkal mbaa wàññi ba ñàkk ab phénomène buy wéy di jur lu métti te tiis lool la di accident yi am ci tali bi. xol ba nu jeex sa doom bu xëy ndékki fii ñu xëy ko rey ko ni ci maali borom comme yow sa xol jeex. mu ngi doonu soxna Ndeye Fatou Cissé ñu waxtaanee moom kuréel gay xeex mbiru càccum jur gi ci biir réew mi ñoom nag ña ngay sàkku rek eh, ngir ñu bàyyi sàmm kat ba fàttoon bakkanu sàcckat ba ca ñoo njiital kuréel ga li ci joxoñ baaxamu tuuma nguur gi ne moom moomu le moon nangu la doxal waa bañ ci te woon boobaak léegi Cheikh Tidiane Diagne bi la yoon naka kuréel gi leen jiite ci réewum senegal ñoo jokk ngir wax ak nguurub Sénégal Aboubacar Biteye moo leen jiite bëgguñ dara ci réew lu jàmm nañ bàyyi Adama Kayta mi mu ñibbi moom la ñuy président Macky Sall na ci addu ministre de la a xam ne réew mi tegu na ci fuñ xam lu bu waroon a def jël na ba a indil fitna nag Adama Kayta a ah, loolu nangu ñun duñ ko nangu dossier ko teg ci suuf parce ki nga xamante ne moom mooy ki fexe li am jarut ko mbiru sàccum nag mi amoon ca commune bu Daaru Salaam ca bu Nioro ba ñu faat fa ki ñu tuumal ne moo doon sàcc jur googe ba léegi coow laa ngi ne jobbay luñ ciy def na loo xam ne wuute naa ñu liñ bëgg dañ wax ne ñu lii lañ bëgg subaa nag ñu teg ko ci yoon li nga xamante ne mooy luwaa waaye nag dootuñ nangu daal koo xam ne dañ lay fekk sa kër faat la jël sa alal loolu moom ñëpp nañ ko bañ këram lañ ko fekk fekk ci arrondissement am lañ ko fekk ci commune am lañ ko fekk ndax kii mu ngi dëkk ci département bu département Birkelane ñëw ba commune u Daaru Salaam ëpp na téeméeri kilomètre bakkan dal di root ci mbirum sàccum jur moo ne day bés bu yàlla sàkk dinañu dégg ñi nga xamante ne ñoom ñooy défendre ñii di yarkat di ci addu waaye tamit di alerter nguuru pa nak ci seen kàddu ñoom ñooñee ñu ne état bi responsabilité ndax yoonu dëgg bi nga xamante ne moom la tëral amut lenn luñ ci jëfee li waxoon nañ ko ne nañ fexe indi loi boo xamante ne dañ koy appliquer ba nit ñi mën cee tënku ba duñ mën a fajal seen bopp léegi nag li waral loolu am mooy xoñoñte ndax kooku dafa jog ñëw jël na jur gi te moomu ko yeew ko foo xam ne lam ci jubloon mooy jël ko yóbbu waa dëkk ba gis nañ ko tëru ko bi mu demee ba war koo yóbbu mu taxawaat pare faat mu tase ki nga xamante ne mooy Adama Kayta kooku fekk mu ngi ngànnaay loola moo waral mbir ma demee noonu waaye jubluwuñ ci faat association bi ne nag li ñu bëgg mooy kilifa diine yi daal di àddu ci mbir mi ndax ñoom duñu seetaan mukk ñuy tëj ki nga xamante ne moo di Adama Kayta rax ci dolli tamit di ñaan président Macky sàll mu daal di woote ab ndege ci ñaari fànn yi bu ñu sukkandikoo ci kàddu Aboubacar bi tey mi wax ne càccum jur gi dellu na gannaaw bu baax Cheikh Tidiane Diagne dañuy desandi ak moom Aboubacar bi tey di njiital euh, kuréel ga la mu xam ne nag mooy euh, kilifa yi nañu bàyyi seetaan gi lu ko may nit ñi daañu fayul seen bopp sàkku itam rek ngir ñu wut ci saafara jaaree ko ci taxawal ay comité ngir rek nit ñi mën cee indi joo ab jooyanti ci mbir mi jaaree ko nag ci ay tàggatu yu wóor a wóor Aboubacar bi tey ba léegi ma ko indi léegi dem yóbbu mandat de pew léegi instant bi mu ngi ci man gisee guma procureur waaye incha allah bu ñu fi yàlla bayee danaa dem gisee ak moom yebaloo naa ay nit sax ñu dem nañu ji xam nañ ko xam nañu suñu dégloo dana xam li ñuy wax liggéey bi ñuy liggéey kenn fayul ñu ñi ci liggéey kenn fayu leen ñu ngi seetaan loo encore gën a def fexe ba réew mi am jàmm fexe ba réew mi am sécurité fexe ba réew mi dal fexe ba éleveur yëpp ne ci jàmm fexe ba ñi nga xamante ne loi bi wate woon ñu appliqué ko ba sàcc yu ndaw yëpp bàyyi sàcc yu mag yi mën a nopp loolu war na a ne su loolu amul jafe-jafe mooy am te jafe-jafe su kenn du ci mucc kañ lañ koy àtte waxul leen waxaguñu kañ lañ koy àtte comme man gisaguma procureur demaguma ci moom incha allah ndax dama doon xaar ba ñëw comme andi ko la ci xalaat ak lan moo ni ca a guñ fay àddu ndax dañoo wax ne saaga ñu néewal ko a jóg jafe lu bon te loolu baaxul ci réew nañ moytu nit ñi di fajal seen bopp fajal seen bopp googu nag waxoon naa ko depuis 2010 nañ bañ ba population bi ñàkk wóolu justice bi ñàkk wóolu seen état su ñàkkee wóolu seen état mooy kenn ku nekk day fexe la mën a def mu def ko suñ demee ñàkk justice nag mooy ni loi bii tey waa ji bu ñu ko jàppee bu subaa ñu bàyyi ko kon duñ xaar dara loolu nag baaxut ci réew dafa yàq réew rey ñun d'accorduñ ci encouragé wuñ kenn kuréel gi du pour rey pour defar la du sa pour dóor ñun duñ gendarmerie duñ police civil lañ yoo xamante dañoo jóg taxaw pour dimbalanteeg gendarmerie ak police ak autorité yëpp pour réew mu tegu ci yoon ndax réew mi Sénégal réew la moo xamante ne suu doole ko la amuñ moyen yoo xam fu ne mën organiser niveau national te xamoo ko mënu nekk fas yu ñeene def dara lu jalgati lu wuteeg li loi bi santaane waaye nag lu ne rek dafay am fu mën a jaaree Aboubacar bi tey ñu waxtaane nag leneen muy njàqare ak di tànge ci askanu uh, Sahara ñoom nag moom la ñu dëkkee àjjuma ba tey ji gannaaw uh, ngelaw lu metti li fa amoon ba daal de daane rek fii lu haute ba ci mbedd mi ñëpp di jaar askan wa ne seen bakkan a ngi ci xottu gerte tax rek ñu yuuxu wallu jëmale ko ci kilifaay dëkk bi Cheikh Ababacar Dieng sax moo nekk di am jamono ji ci mbedd mi gën a yaatu ci buntu marché Kibel ci Saara Kaolack. moo tax suba teel damay xëy taxaw fi ndax fi la taale bi jaar ak tànki nag moo tax askan wi fi dëkkee góor ñi ak jigéen ñi ñëpp dëgg seen gémmiñ ndax jaaxle ñi ne nag ñi ngi wax kilifa yi ne ñoom ku leen jëndal ordonnance moo leen gënal ku leen fayal tàgge ndax lii fi xew àjjuma ba tey ji ñi ngi ragal muy jur bu looxi Cheikh Sène Mané mooy turam bi gën a siiw notable la ci quartier bi. loo xam ne depuis am na ajjuma ba léegi te muy courant nga xam ne dafa am tension xale di ci jaar fas yi di ci jaar ak saret taalib yi di ci jaar oto yu mag yi di jaar jaar camion fil bi commencé naa usé te fil bi su usé nga xam ne amatul isolant amatul dara ku ci dëgg de mbir nag boo taxawee ci wet gi di koy xool sax nit di romb di ci jaar muy oto moto ba ci Jakarta sa aduna day tukki parce que li oto yi dañ ko dagg lii nag xale bu ci jóg wala mag mu ci jóg yàq xale yaa ngi fay fii fii taalibe yi jaar fii jigéen yi dem marché jaar oto yi fii ñoo ko def pour baare ko pour au moins euh, maîtrise la situation Jakarta yi kenn mu leen tëddee suñu oto yi mag jaar tey lañ defa barrage bi xanaa su gisee ak moto bu rouge bi ñu takk nii pour wane ne c'est un la pour ñoom la ak suñu bakkan ak suñu bakkani doom ak suñu bakkani njaboot beneen jox courant bërëb bu liggéeyukaayam bi waaye mu ngi koy may gët bu baax léegoo léeg mu ñëw def fii lëf demaat. dama ko doon collé rek parce fii li daam ay dagg-dagg bi mu daggee ba léegi ñoom ñëw nañ fi ba gis ko waaye dellusiwaat. maas xale moo tax moo tax ñu def si col yi pour mu tane comme amu ci pexe bu fekkoon ne lu ñuy tendre rek la sax man mun naa ut électricien parce que camion musoon na fi jaar dagg ko man maa utoon électricien mu defaral ma ñuy yeewu fajar nag du utali marché géej ak marché central ñi ñaaw njortu ci mbiri ragal nañu ëllëg maara day taale mu def leen luy naqaree nettali fajar gi nii nit ñi bu ñu waree dem marché fii la jaar ak poto bi nii xoolee xa lay tey lii boo ko xoolee sa yaram day daw sax parce que jàpp ne yow ah, ñu ñëw def nangam ak nangam fekk du ñu amal te njariñ bàyyi jaan ba mu nga topp si diree ko ba du dóor ñu njariñ nañ jàppale ñu defar ñu ko parce ñu toog te yàlla ji bu tawee lii mun na gën a indi beneen danger bu bokkut ak biñ ciy yaakaar sax. askan wi dëkkee ci Saara marché Kibel su moyee potu lamp bi nga xam ne haute tension la ngelaw li daani ko àjjuma ak tey kilifa yi seetaan leen ñu ne dara lañ leen defalul ndax seen marché bi tëli yi ko wër yëpp a yàqu yaxeet. foofee la ñuy desandi Cheikh Babacar Dieng waa gox ba nak di indi ay leeral ci jéego yi nga xam ne rek jot nañ ko dox bu baax léegi ci diggante Senelec brigade gendarmerie ak police te ba tey ji taxul ñu am ci benn safara Cheikh eh, Sène naan ko Mané Sène mi ngi wax eh, li xew ak Cheikh Ababacar Dieng li xew daal lii di musiba boo xam ne la a jur ëllëg kenn xamul na mu ñëw ba ñëwee itam constaté xool xam ne li c'est grave ñoom bi ñuy ñëw dañ ne ñu ngi dem te ñëw ci may wax ñoom ñëwaatuñu ba loolu amee ci suba sa ma yeewoo woo la brigade de la gendarmerie seen numéro vert bi le 800 00 20 20 ba ma leen jotee itam ñu ne boolee maak commandant brigade nekk Kaolack bi moo fi prévaloir à Sar Marché eh, Kébémer dafa situation boo moo gën magum foogu naa ko li may bañ bi ñuy xool situation dee ci ñu doon wala ëllëg si bi médecin après la mort loolu bañ moo tax mooy attirer seen attention commissaire bi Sène très bien dégg naa li nga wax vous avez bien fait li nga def kontaan naa ci dégg naa li nga wax maa ngi koy jottali préfet léegi ah foofu laa ci yem xaw ma nag jottali na préfet wala jottiwul préfet ci Senelec nag moom seen bopp Senelec seen bopp ñëwaatuñu mais tey suba dama fay woon courant man bi ma demee jaar naa ci bureau dépannage bi wax naa leen ko ñu jël sama tur jël sama numéro téléphone ne ma dina ñëw sànq bi ma wooyee ne ma Mbési Sène yaa ñëwoon def réclamation bi ci poto bi ma ne waaw mu ne kon ñu ngi ñëw ma ne kon nag maa ngi leen di xaar sama chaise laa toog fii ci taatu garab bi di leen xaar ba heure bii sànq lañ ma woo ne ma duñ mën a ñëw tey ñu ngay diir duñ mën a ñëw tey kon xam naa suba dinañ ñëw

taxawal ab kuréel ngir taxawu seen ak dëkk sàmm koom gi suuf si doxalin bi rawatina mairie ba euh, kuréel gi nag ñu ngi ko duppee alliance des leaders de Ndiaffate Noabiaye association leader bu Ndiaffate benn kuréel la bu juddoo fi ci Ndiaffate bëgg-bëgg mooy ni indil solution ci jafe-jafe askan yi Ndiaffate Moussa membre la ci alliance booba. nit ko xam ne dañ koy fal mu toog pendant sept ans mu xam ne soxlawaan na population yi léegi nag mu dajale xaalis xaalis di dem si population yi di leen jox xaalis pour ñu voteel ko comme si ñun dañ ñu jàppee comme ay ganaar yoo xam ne dañ leen di xiifal ba ñu xiif rek nga ñëw jox leen tuuti cox après ñu ñëw ñu daal di kontaan ñu ne kii moo baax alors pendant tout ce temps là loolu yëpp lu ma leer ba leer ci contrat bi nga xam ne dañ leen jox ay millions ñu téye ko pour naxe mbaay ak yoon mais nañu xool waa walla dex yan difficulté la ñu war a mun a am pour rejoindre l'autre partie de Ndiaffate te pourtant cette zone de la localité c'est une zone économiquement dynamique mais xoolal fora bu ñu def fii dëgg naa ñu ngi ko defaree trente quatre million defar mur gestion bu seen maire suñu sukkandikoo ci ñiy nekk membre bu alliance nee na muy far mu andil ay gàllankoor ci dundu askan yi Moussa Ka ñoom déjà seen xorom si mu ngi doon dugg suñu tool yi mais ñu def beneen contrat boo xam ne day yokk seen i moomeel mu gën a dugg si commune di Ndiaffate tey ñun béykat yi non seulement dañoo sonn mais lépp loo béy du baax ndax xorom si imagine loolu ñun en ans wala trois ans bu ñu signé contrat bi rek gis nañ déjà les effets négatifs sur l'environnement tout simplement xorom si yéeg na fekk si tool yi fekk si suñu espace bi nga xam ne ñun foofu lañ doon béyee ceeb. ci fekkante alliance des leaders bu Ndiaffate gis na seen askan muy am ay jafe-jafe ci seen wàllu dund ba ci ñeneen yi tax naa ñu woo seen maire satu Ndiaye mu gën a àndil solution balaa musiba mu leen dal. noa bi yi dañuy desandi ak kuréel ga fan la ñu jëm ñu jàpp ne nag mbindu mi ci lycée ak carte yi rek moo leen ci mën a dimbali Moussa Ka mi ngi ciy ñëwaat ba léegi ak Noa Biaye. dañoo jël benn initiative mooy ay leader yi nga xam ne dañoo nekk ci commune Ndiaffate ñu jaaxle lool ci commune bi nu muy doxee ñu juddoo fi yaroo fi màggee fi tekkee fi tamit Ndiaffate may ñu lépp ñu gis ne tey Ndiaffate fu mu waroon toll tolluwul foofu ñu ne nañu daje porter un combat un combat noble boo xam ne tey këpp koo xam ne yaa ngi ci commune bi nga xam ne war ngaa jóg loolu mooy initiative bi initiative bi nag yemul ci ñun ñi rek même si lépp loo gis rek dafa am ñi nga xam ne ñoom ñoo koy initier ñu nar a taxaw nag woo ci population yi yëpp parce que yemuñu ci leader yi kese population yi tamit dañoo am seeni responsabilité ndax nag dañoo ne tey gis nañ ay affaire u ay affaire u caay-caay ay affaire u bi nga xam ne suñu leader yi communal yi noonu la ñuy doxee waaye loolu dinaa si ñëwaat ñu ne nag loolu buy am dañoo toll moment boo xam ne dañuy wax ma carte ma force ma carte ma voix ku ci nekk rek tey sa carte moom mooy déterminer avenir bi nga bëgg si pour sa commune développement bi nga bëgg pour sa commune moo tax tey comme niñ ko defee depuis bu inscription yi commencé jeunes yi nga xam ne ce sont des primo votants ak ñeneen ñi nga xam ne njaafaat la dëkk commune de la ñu dëkk tamit nekk feneen ñooñu ñëpp ñu ñëw inscrire ci liste électorale ndax bu ñu ko defee su boobaa la ñuy def li nga xam ne moom moo war citoyen bi mais ñu def li nga xam ne ñun ñëpp tey moom moo ñu war mooy que ñu décider kan moom moo ñu war a jiite loolu nag pour mu am il faut que d'abord nit ñi mun a inscrire mun a voter. leneen li leen gën a yitteel nag ci xeex bi bokk na rek ci indi ab yi ci contrat ba dox ci seen diggante ak yenn ci entreprise bi ci gën a fës nag di seen digganteeg Salin du Sine Saloum Moussa Ka ba léegi ak Noa yaay deuxième appel bi nga xam ne ñun def nañ ko mooy commune bi ñu fi nekk dañoo signé benn contrat boo xam ne ak les salins du Sine Saloum ñoom nag comme ay cuune lañ xamuñu dara bu ñuy signé contrat bi dañoo yëkkati haut la main ñu yaakaar ne signé nañu contrat bu baax mais ndekete contrat bi ci biir ay naxee mbaay ñoo ci nekk walla sax mun na am du ay naxee mbaay mais ñoom ñoo ko jàpp di ko naxee nit ñi alors imaginez les salins du Sine Saloum pour un chiffre d boo milliards la ñu ngi koy am mais xoolal tey même liggéey bu baax mënuñu ko jox les populations de Ndiaffate boo fa demee non seulement liggéey bi dafa métti fay bu ñu la war a fay duñ la ko fay droit yu ñu la war a jàppee en tant que liggéeykat ñu la ko jàppee am nañ fi ak ñoo xam ne dañoo am problème ak salaire ñu nekk ci dëgg te ba tey mënu leen jox seen xaalis loolu mu ngi fi te loolu dafa nekkul yoon dañoo wax tey responsabilité sociétale des entreprises bu nekk gox goxaan bi nga nekk si lu ngay liggéey population yi dañ see war a yëg seen bopp te lu njëkk mooy normalement ñu am foofu liggéey bu baax si contrat boobu la ñu wax ne chaque année normalement war nañu yóbbu si doomu njaafat mu dem jàngi France mais loolu ba léegi amuñu si benn information lycée yaa ngi fi les deux lycées de Ndiaffate mun nañu wax est-ce que depuis boobu ba léegi am na benn élève boo xam ne de la commune de Ndiaffate bénéficier na bourse en tout cas bu ngeen ko xamee ngeen wax faat googu la ñuy jaaree dem ca diwaanu Vélingara waxtaanee coowal suuf li am ci uh, réew mi ca dëkk ba ñuy wax nag Sandaga coow laa nga fa ñu di uh, diggante ñaari kilifa kenn ku ne taxaw ne mooy borom dëkk ba daal di fay samp nag ñaari drapeau ndaw ña nag jóg di woo sous préfet ba mu indi ci ab jooyanti Souleymane Sylla ci micro Babacar Diouf. suñu problème bi daal mooy chef de village. waaw depuis bu ñu dugg ba léegi bu ñu toll nii ba léegi problème boobu nekk Sandaga mooy affaire chef de village suñu préfet dafa na loo xamante ne impose ñu duñ ko nangu nanguñu ko tey nanguñu ko suba maanaam jël victoire bi jox ko xamante ne gàññewul maanaam ñuy reprendre élection bi rek loolu la ñu bëgg dee bu dee bëgg na loo xamante ne lu leer nañu ñuy reprendre encore bi loolu jàmm am sinon bu deful lool kay wax dëgg te ñun buñ sañoon kay jàmm mais comme demee na nii kay nañu suñu papa suñu maam yi suñu xarit suñu am di jàmm ñaa dalam maanaam jàmm la ñu bëgg daal mais lépp loo xamante ne monsieur le préfet dañ koy mu ñëw reprendre encore à zéro bi maanaam mu def ko comme niñ ko def 91 loolu lañ ko bëgg parce que maanaam moo ko fi indi ñaari drapeau yi sous-préfet moo ko fi indi comme ñaari drapeau kay mu ñëw dañuy xëy jëkk gis gars yi di monter bi xamuñu drapeau bi fan la jóge xamuñu ku lañu yénd ñu ngi laajee monsieur moom nee yëbalu kenn yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM 90 ñaareelu pàcc ba ñu waxtaanee ci rek mbiruk social di jàppalante ak dimbalante defaraat ay salle de classe ca institut islamique di école arabe El Hadji Abdoulaye Niass bu Medina Baye liggéey ba nag ma ngay dox na mu waree démb ci talaata ji président Serigne Mboup ma euh, jëloon dogal def ci lu tollook téeméeri million ci sunuy koppar moom nag amaloon na fab doxam tourné meeku ngir euh, soññ liggéeykat ya xam xamle ne caabi ya daanu ko joxe weer rek décembre bi di ñëw Cheikh Tidiane Sarr liggéey Pape wala sax Mahat El Hadj Abdoulaye Niass jëm ci defaraatu classe yi foofule te ki ko def di Serigne bu président mouvement ànd defar Kaolack ñu war cee def lu tollook téeméeri million si suñu xaalis lu nu mel ak liggéey yooyu tax ba président Serigne Mboup demoon ci barab yi seet tolluwaayu liggéey bi. non dama ñëw rek visiter waaye saytu bi moom xam naa ne moom mi ngi koy dox ndax moom bis bu nekk xam naa ne mu ñëw xool ko te ñu ngi jokkoo téléphone dama ñëw xool rek pour sama xel dal ak tamit man tamit ma mën a soññi ko yor ñu gaawal ñëw daal xool fi mu toll ndax bi ma ñëwee xam naa ne avancé na waaye dama leen di soññi pour ñu gën a gaawal seen loxo incha allah yéeg-yéeg bi may am mooy école bi nga xam ne nii alaaji Abdoulaye moo ko sancoon ngeen ne bàyyi fi la jànge tijaan yi jànge fi murit yi jànge fi ñëpp fi jànge yëg-yëg bi ma ci am mooy yàlla moo ma baaxal jaarale ko ci loxoom pour ma man ko mën a defar ndax wa man nasru illaa min indillah nit da nga mën a def dara waaye yàlla moo lay dimbale yàlla mi ma dimbale nag ma mën ko def jaarale ko ci moom yëg-yëg boobu daal laay am te di ko sant bu baax. fondement bu pare ñu commencé sax di teg miir bi moson yi nekk seen liggéey bu mat sëkk président Serigne Mboup ne ci lu yàggatul dara fii ak weeru décembre danañ joxe caabi yi. di am motivation bu am solo mooy gaaw ko àggale nawet bi moo téye yenn yi ndax fondation yi dañ ko def fondation yi am solo yu baax yu dëgër yoo xam ne ni bâtiment bi mën na yëkkatiwaat ci kaw te am yéene sax yëkkatiwaat ko ci kaw am yéene daal incha allah décembre ñu jox leen caabi yi incha allah ndax am yéene tamit buñ ci noppee tamit yàlla dimbale ñu mën a tàmbali leneen fii ci école bi moderniser ko bu baax a baax incha allah. Serigne Mboup namm cee def lu toll ak téeméeri million si xaalisam tax ba Serigne Cheikh Moun Amina Cheikh Ibrahima Niass di wax ne bépp taalibe Baay war nga koo ci jëf ju nu mel. Cheikh Tidiane Sarr directeur école ba nag moom ñëwaat na ci njariñu daara ja waaye itam lu tax rek ñu war ko mën a méngale ak jamono ak taxawaay bi nga xam ne rek président Serigne Mboup am na ko ci Serigne Cheikh mun Amina Cheikh Ibrahima Niass ak Cheikh Tidiane Sarr. alhamdulilah rabbil alamin dañuy fàttali rek ne Serigne Mboup dafa ñëwoon ci école bi nga xam ne mooy mahad islami Alhaji Abdoulaye Niass bi nga xam ne ni Alhaji Abdoulaye moo ko sos waajuru Baye Niass ko bi ko ko inauguré dafa ne dafa am benn euh, tubaab colonialiste bu ko laaj ne ko sa autorisation école bi laa bëgg a gis mu ne ko sama autorisation école bi boo ko bëggee gis da ngay dem laaj ko sama bàyyi parce que man école bi ci laa jàngee loolu nag laaj na leeral yomb naa xam lool waaye ci génération bu mujj bi laaj nañu leeralal leen ko parce que lii école la fii la nekk ci saam ci Medina te bàyyi nga woon lew na ñu ne fii la jàngee mais li mu bëgg a wax rek mooy sëriñ si daara lañ donn donnoo ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa moo ne borom xam-xam yi ñoo donn yonent yi mu jëmmi jamono mu ne waaw léegi nag àddina dafay soppeeku te dañoo war a ànd ak jamono daara ju njëkk ji ñu daan def rek toog di jàng ay téere baax na waaye jamono dafa soppeeku laaj diplôme laaj jàng yeneen i matières yoo xam ne ni ñun xamuñ ko woon kon damay moderniser école bi def ko muy école waaye école boo xam ne mission daara ji la yore mooy tasaare xam-xam rek te du laaj kenn xaalis loolu sax moo waral ñuy am yenn problème yi bu defee nag sëriñ bu bi mu xamee loolu nag mu ne moom daal gisut fu muy def alalam fu gën a barke fu gën a porté mu ñëw ci école bi fi benn bâtiment boo xam ne bâtiment bu moderne la xale yi mën a jàng ci sécurité jàng ci dal jàng ci set dégg nga xemem xam-xam loolu mu waxoon ko wax ko ci kanam gor ya wax ko ci kanam sëriñ bi sëriñ bi jox ko ndigal ñu def fii cérémonie boo xam ne dañuy pose première pierre la léegi nag ñu ñëw nag commencé ko ba fondation bi jug ba taxaw bañ commencé teg ci kaw mu jaar fi par hasard rek xool état bi lan la état bi mooy liñ gis nii fondation bi pare na kii bi sax moo ko xaw a yéex ndax mu bëri mi waaye léegi macha allah dëgër boo xam ne même moom li muy tabax dina attan leneen loo xam ne nii ci kaw lay nekk loolu la ñëwoon pour seet si ko pour sant yàlla. Serigne euh, Cheikh mun Amina Ibrahima Niass yemu ca la mu ca yokk nag mooy taalibe bàyyi war nañ caa jàngee lu bari jël seen xaalis dugal ko ca dara ja ngir mu mën a am kaaraange gi war laata moo àddu ci diggante tarixa yi rawatina nag diggante Murit ak Tidiane ñu lu ko ba léegi ak Cheikh Tidiane Sarr. bàyyi mbiram dafa doy waar parce que école bii bi ma la wax nii bi ko bàyyi sàncee bourse bi ci njëkk a génn ab Murit lañ ko jox ne ko kii murit la mu ne leen man xaw ma kuy murit li ma xam mooy comme dañ doon def test moo jiitu jox leen ko bursam ba pare danaa ko jox xaalis mu dem jàngi loolu nag moo répété waat bi ñu ba école bi soxla ku ko dimbale balaa taalibe yee ñëw ab murit moo njëkk a ñëw ne man maa ci def sama alal alal joo xam ne ni du ma ko natt fu mu yem rek kii na ko loolu nag leçon bi ci nekk lu day waar la mooy wane lislaam dimbalante ak jàppalante ak i tamit delloo mbir yi ci yàlla te bu delloo ci yàlla yàlla amut sant santut Mbàkke santut Juuf santut Ñas santut dara yàlla mooy yàlla rek loolu li ci solo waaye nag terewut ci tamit nit ku nekk sa baay bu nekkee borom teraanga jàngal ay nit yar ay nit ñu dem ba jël bés wala ñu jël kii ne nañ dem tereli seen baay tereli baay yooyu ñu jàngal yow mim jur nag war ngaa gën a góorgóorlu ci mbir moomu li ma bugg a wax mooy ñëpp war nañ cee def waaye taalibe baay yi tamit war nañu jàngee ci lii leçon ne ñoomi tamit école bi war na leen a jaral ñu def ci seen xaalis parce que sëriñ boobu li mu def lu rëy ndax léegi léegi rek préfet bi mu fi ñëwee ñim àndal am na ci ñoo xam dañu ne bâtiment bi normalement xaj na sëriñ ak respecté yenn kii mais bu doon feneen la daanaka bâtiment bi dañ ko war a daane parce que amatul sécurité xam nga école bàyyi bu mel noonu nag mu dem ba mel noonu wax dëgg yàlla ki koy defar def na lu rëy parce que bâtiment bokkut ak kii mais xaalis bu bëree bëree bëree ci dem parce que bi ñuy départ sax dañ ne woon cinquante mais techniciens yi dañ ne ko cinquante millions ko mu ne ba cent pare na pour kii te léegi wax na ma ne karo yeeg li ci a dem ak yëpp mu ngi ci àgg rek ñetteelu pàcc bi ñi ngi ko jagleel wàllu koom ak gi waxtaane rek ndajeem conseil national ba ñu jagleeloon woy jëfandikoo yi ministère ba ñu dénk wàllu njënd meek njaay mi daal di jël dogal euh, soxal rek commerçant ya ca diwaanu Ndakaaru muy wàññi njëgu yenn marchandise yi commerçant yi ci kaw Kaolack nag ne loolee nag la ñuy bañ mu euh, dal leen ndax dogal bi dafa euh, tembare ci jamono ji nga xam ne rek kilifa yaa ngay am lu ñuy nas jëmale ko ci ñoom soxna Ngoné Ndiaye ren jëwriñ nag Ndiaye mi xaatim ab arrêté di ca fësal wàññiteefu yenn ci li askan wi di dundee bokk na ca diwliñ ceeb ak suukar dogal boobee ñu jël ko ci jamono yu ñu doon amal conseil national de la consommation ci ay bés yi ñu génn fii ci Kaolack nag commerçant yi ak boutique yi ña nga yëglu ne njëg yooyee ñu appal waa Dakar la ñuy bañ mu am fii ci Kaolack ndax nag njëg yi wàccagul Abdou di ab boutiquier moo ko xamle. prix yi dafa seer ba léegi de gars yi nangu gu ñu wàcc xaw ma si yu mag yi la xaw comprendre ñun boutique mënuñoo xam affaire bi lan la parce que bagage yi ba léegi dañuy dégg ne wàcc na si rajo waaye gisaguñ affaire yi ba léegi dafa seer suukar boobee ñuy waxuk wàññitee fam moom Abdou mu ne teg ko gët waxtu wi doon na lu jafe lool gisuñu dara lu wàññeeku suukar bi dañ ne wàññi na ay affaire yeneen mais ba léegi mënuñu suukar sax ko teg bët soxna si di ab jaaykat ñu fekk ko ci Medina Baye ci place am mu ñuy xamal ne nag dogal boobee kat bu naree tàbbi fii ci Kaolack nañu leen may ab diir ndax ñu mën a jaay la ñu dencoon ñëw ne la wàññi ko xam nga loolu dafay daal di métti waaye léegi suñu mayee délai na ba nga xam ne nit ñi jotul nañoo jënd bagage bu seer ñu jaay ko ba pare ñoo fekk si leen ci prix ba ñu wax waaw ndax prix ba tey sax nit ñi gisuñ ko ba ah, ñu fekk si leen ci dañu wax rek te bàyyi lépp ci loxo yàlla waaye métti na bu ñu sukkandikoo ci boutiquier bi ñu dajeel li jar a bàyyi xel waxtu wii mooy ne balaa ñuy wax wàññiteefu njaay mi ala foog ñu xool njëg yeeg nañu koy doxalee nit doo jëndee fukk nga jaay juróom waaw wàññeeku bi si grossiste yu mag yi lay jóge ñun fa la ñuy jënde parce que ñun foofu la war a wax ma leen di ñaan lépp li nga xamante feebar bi mu ngi ci nañ ko saytu ñu xool askan bi dañoo sonn waaw ñun dem sonn parce que lu yokku dañ ne ñun ñoo ko yokk te alors que affaire yi jógee suñu commerçant ba ci boutiquier fii ci Kaolack di yëglu ci waxtu woo xamee ne sax kilifa yi ngànk wàllum jënd meeg njaay mi ci diwaan a waddal ab dogal ñoom jaaykat yi yëglu ne nañu kër ga ñu dénk wàllu njënd meeg njaay mi fii ci Kaolack ñoom nag la ñu xamle mooy ña nga cay wut ay pexe rawatina ci njëgu suukar si jëmale ko rek ci transport bi ci ña koy jëlee ji ci bitim réew gannaaw ba ñu ci joxe ab dogal di autorisation ànd ak di xaarandi njëgu euh, cinquante mille tonnes suukar gi rek tàggoo ko jafe-jafey euh, suukar si Mamadou Camara ak Soxna Ngone Ndiaye reen. depuis quelque temps am nañu ay quelques difficultés ci approvisionnement suukar mais aussi euh, solution par rapport ak problème bi pas plus tard que il deux jours monsieur le ministre des finances dafa génne benn note de service boo xamante ne ni vraiment ministère du commerce mu demandé woon pour ñu suspendre les la taxe conjoncturelle sur le sucre loolu ministère finance def na ko pour vraiment accompagner commerçants yi ñu mën a dem jëli suukar bi à l'extérieur fi nga xamante ne nii njëgu suukar bi dafa yokk fi mu nekk ni sur le plan international mais aussi de transport dafa am njëgu fret bi aussi dafa yokk jëli à l'extérieur ñëw jaay ko ci prix homologue bi fallait que gouvernement bi jàpp ci ci cadre boobu ci le ministère des finances génne na boobu noonu suspendre pour l'instant la taxe conjoncturelle sur le sucre nga xam ni kenn dootu ko laaj à l'entrée pour ñu mën a permettre vraiment commerçant ñu mën ko jëli damay rappeler rek que depuis semaine dernière autorisé nañu importation de sucre yi parce que soo jëlee CSS moom production neuf mois lay couvrir na mais aussi problème de transport comme ni ma ko waxee am na gouvernement faaw mu xool moom it nu mu ciy jàppee loolu indi euh, suspension taxe conjoncturelle bi ñu def sur le sucre ubbi nañu pour cinquante yoo xam ne war na ñëw xëy na pour l'instant nag li duggagum bariwul donc euh, problème yi dina kii mais ñi ngi yaakaar vraiment que dans quelques jours problème suukar bi moom sera un vieux souvenir. la mu ca yokk nag mooy yokkute amul ci njëgu suukar si rawatina ku ñu kalaamele su ko defee rek ñu mën laa teg ay daan Mamadou Camara ba léegi ak soxna Ngoné Ndiaye ren ñun au niveau du service régional du commerce aussi tooguñu parce que aussi suukar si li yokk njëkk amu ci li ci am mooy ay ñoo xam ni commerçant li ñu woowee ay commerçant ñun dañ ciy veiller bu baax a baax a baax équipe yi ñu ci terrain bi heureusement aussi ñi ngi jot ay réclamation wu ay consommateurs yoo xam ni aussi réclamation buñ ñu ci bu cher boobu lancé aussi benn appel ci consommateurs yi aussi pour ñu jàppale ñu jàppale ñu mooy ku gis genre situation yooyu nga ñëw yëgal ko les services du commerce ñun la ca war dinañ ko def consommateurs yi ñoo ñu mën a jàppale ci liggéey boobu di dénoncer yenn fait yi dénonciation bu ci am dinañ ko topp ba mu ba ni mu comme ni mu waree sanction yi war ñu teg ko commerçant bi euh, bi appliqué ëpp yooyu donc loolu mooy vraiment mesure yi njël au niveau du service du commerce xabaar yi bitim réew xibaaru bitim réew Cheikh Tidiane Sarr lañ ci àndal la ne ci ban réew lañ koy dooree. dañ koy dooree ca Guinée Conakry waxaat ci coup ba jamono ji daal ñu ne réew yi nga xam ne ñoo dend Guinée daal kenn déggugu leen ci mbir mi donte sax CEDEAO kuréel gu leen takkee moom artu woon na di wax ne daal nañu fexe ba respecté waat li nga xam ne nag moo di àq ak fu ñi nga xam ne ñoo nekk ca réew ma waaye tamit sàmmaat bu baax a baax démocratie ba CEDEAO sax ci boppam da naxarlu bu baax baax coup d'état bi nga xam ne jot naa am foofule ca Guinée Conakry ci njiitalu lieutenant colonel Mamadi Doumbouya ñu bëgg daal woote benn daje boo xam ne ñu ngi koy woowee sommet virtuel boo xam ne ci internet bi daal lañ koy defee lépp daal ngir toog jàngataat bu baax a baax euh, tolluwaayu Guinée Conakry ci waxtu boobu soxna Ndeye Khady jàppal ne sax ca Guinée jot nañoo def li ñuy wax jokkalante yi jëm ci poste yi nga xam ne yenn ci ministres yi occupé woon nañ ko foofu ak yeneen ci ay kilifa mu nekk taxawaay boo xam ne tamit euh, colonel bi indi na ko ngir daal fexe ba nga xam ne remplacer bépp ministre bi nga xam ne jotoon nga am ndomba tànk foofu ñu teggi ko jox ko ñenn ci militaires yi tamit leneen lu ñu def moo di ay bépp ministre ngay jéem a génn ca réew ma mu mel ni daal lieutenant colonel Mamadi Doumbouya ak ñu mu àndal jamono ji ñu ngi bëgg a dalal xel bu baax a baax ñii ñuy ooyee partenaires internationaux yi nga xam ne daal ñoom ñooy faral di dimbale bu baax a baax Guinée ak yenn ci réew yi ñu ne daal jàmm lañ bëgg bu baax a baax ci réew ma ba tax ñu ne tamit danañ waajal li ñuy wax transition bi jëm ci nees mën a def ba jëbbal nguur ga ñii ñuy wax civil yi bitim sa càdd moom gannaaw bi nga xam ne coup tamit am na fa foofu jamono ji militaires yi yor nguur ga di doxal ci njiitalu Mahamad Idriss Déby di doom ci Idriss Déby mi nga xam ne jotoon nañ ko faat foofu la ca réew ma jamono ji lu ñu bëgg moo di ubbi bunt yi jëm ci wàllum candidat yi di kan moo soxla jiite conseil national de transition bi te ñu war ko dénkagum réew ma jamono ji ci loolu lañ nekk mu nekk ay taxawaay yoo xam ne réew ma am na ko daal ngir mën a indiwaat jàmm ju mat sëkk foofu la ca càdd mel ni daal penco lañ bëgg def seen réew ma xool tamit nuñ mën a def ba jébbal civil ya nguur ga. xabaar yi. bitim réew ci waxtu bi ñu ut jàmm ci Afrique ci waxtu boobu lañ gis soxna Ndeye Khady ca réew mi ñuy wax Soudan daal takk der ya teg fa benn cargaison boo xam ne nag nee nañ dafa defoon ay ngàndaay yu bëree bëri jugee ko ca réew mi ñuy wax Éthiopie lu nu mel daal jur na coow lu mat sëkk ca réew ma douane bu Soudan def lu nu mel ni ki ay bis bi ñu génn ay ngàndaay yu bëree bëri yoo xam ne daal dañ ko teg loxo mu jugee nag ca Éthiopie jaaxal lool nag askan wa jaaxal sax kilifa ya nekk loo xam ne sax jamono ji permettre na kilifa ya ñu ubbi ci ab enquête saytu mbir mu nu mel mu ngi tombee daal Soudan ak Éthiopie seen diggante ci wàllum diplomatie rattaxul nu mu waree. xabaar yi bitim réew. ci Afghanistan lañ koy jeexalee wax ci ab yëngu-yëngu boo xam ne daal police ba da ko mujj aaye foofu la ca réew ma gannaaw bi nga xam ne nit ñu bëri bëri ñu nga génnoon ca mbedd ya di naqarlu bu baax a baax dugal loxo bi nga xam ne daal nee nañ mu ngi koy def ci seen réew mii ñuy wax Afghanistan réew mii ñuy wax Pakistan ñu koy naqarlu ba tax daal ñu namoon na amal benn doxu ñaxtu ca réew waaye mujjul sotti ndax police da leen mujj dispersé ay mu nekk loo xam ne daal dana gën a wàññi fitna yi foofu la ci Afghanistan tombeek ci waxtu boobu nga xam ne ñu bëree ngay jël seen saak di jéem a génn ca réew ma. xabaar yi xibaaru tàggat yaram Serigne Moussa Kane maa ngi lay nuyoo. Ndeye Khady maa ngi lay fay te nuyu mbokk auditeurs yi di la ñaanal jàmm di ko sàkk ci ñoom xibaaru tàggat yaram yi dañu ko dooree ak ñaareelu bëccëg éliminatoire ci coupe du monde Qatar 2022 ak léegi nag démb Guinée yàlla dafa bett Mauritanie dóor ko benn bal ci dara Cap Vert moom Nigéria moo ko fekki door ko ñaari bal ci benn Zambie Tunisie ko fekki dóor ko ñaari bal ci dara Malawi dafa bett waa Mozambique daan leen benn bal ci dara Tanzanie fekki waa Madagascar daan leen ñetti bal ci benn. Congo Sénégal a ko fekk daan ko ñetti bal ci euh, benn ak ñaar fukkeelu bit ak juróom-benn bu Sadio Mané ndam loolu tax na ba ñooñu Kalidou Koulibaly daal di jiitu ci groupe H bi. bu dee nag lu soxal dend ko Europe juróom-benn lu bëccëg gi àggale gi tey ji ci ngoon lay doon bu juróom-benn waxtu jotee ba teg ñeent fukki simili ak juróom ci la jongante yëpp di am Kosovo di laale ak Espagne Grèce di laale ak Suède Italie di laale ak Lituanie Irlande du Nord di laale ak Suisse Biélorussie di laale ak Belgique Pays di laale ak Estonie Pologne di laale ak Angleterre Hongrie di laale ak Andorre Albanie di laale ak Saint-Marin Arménie di laale ak Liechtenstein Islande di laale ak la ñuy wax waxtaanee kii di contrat Boniface Ndong bi nga xamante ni moo yore gaynde yu góor ñi nag jeex na tàkk ginnaaw Afrobasket bi mu jeexee moom daal la ñu xamal jiitu fédération sénégalaise bu basketball di maître Babacar Ndiaye bi wax ni nag fu mu toll ni nag bu sañoon daal équipe bi fi nekk daal di des ni ngir àggalee liggéey bi mu dooroon ñu waxtaanee volleyball ak championnat d'Afrique yi nag ñaar fukki dëkk ak benn ñoom dëggal nañ seen bokk nag ci championnat d'Afrique ci wàllum volleyball ci góor ñi ak ci jigéen ñi confédération africaine bu volleyball daal di wax ni compétition bi nekk dana am ca Kigali équipe Sénégal bu ci góor ñi nag moom du bokk ci li nga xamante ni mooy boobu les championnat li ko waral nag ministère des sports nag ñoom fiche technique bi nga xamante ni moom la génn daal di présenté la ànd ci benn yoon. utee loolu ak jigéen ñi nga xamante ni ñoom édition bi passé ñoo jëloon mérode de bronze bi ba tax na dinañ bokk ci édition bi ñu fàttali ne nag moo leen ma jogante ci compétition bi ni mel nag ma ngay amee ca Kigali Arena bu dee jigéen ñi nag mu war a door fukki fan ba ñaar fukki fan ci weeru satumbar bu dee góor ñi nag door na juróomi fan ba fukki fan ak juróom benn ci weeru satumbar ca Kigali Arena ñu dem ca Égypte nag nday xadi football moom du ay résultat dong moo ci topp am na leneen lu ci laxasu ndax kii di sélectionneur bu Égypte di Ossan El Badri moom nag du wedd li ni mel ginnaaw bi nga xamante ni nag atum 2019 ba ñu ko tabee ci bopp équipe nationale bu Égypte ba léegi am na ci juróomi ndam ak ñeenti nii la ci juróom-ñeenti jongante moom mi nag di Ossan El Badri bi jongante Égypte bi jeexee altine gi weesu ci la fédération égyptienne bi yore wàllum football daal di tekki lii di nomba tànkam Ndeye Khady gannaaw bu ñu la ñaanalee kandaa yu jàmm li ma gënoon a fës ci xibaaru tàggat yaram yi jëf. li ci yéene kaay yi kaay yi L'Obs, Le Soleil, Sud Quotidien, li ci yéene kaay yi El Hadji Seydina Omar Cissé lañ ci àndal. Euh, laan bikum sëy ba doxoon ci diggante Bougane Gueye Dany ak coalition Yewwi Askan Wi tas na tasar lang ndax wa na leen ginnaaw Vox Populi moo ñu ko xamal 24 heures yéen a kaay dëggal ko ne sëy ba tas na de Bougane yeewi na boppam yéen a kaay bi mel ni ku jommi ne yëf fa gaaw ñoom bi ñu fi amalee lancement seen coalition ba léegi ay fan rek la fi mu ñu tasaaroo turbine yéen a kaay ne Bougane Gueye Dany xeewi na boppam ca Yewwi Askan Wi fa fas yéen a demal boppam nag ci élection locale yi a tàngoon jir ndax ginnaaw jokkalante kàddu yu tàng jir ci la Ousmane Sonko moom jóg ndànk rocceeku dem bàyyi leen fa Bougane Gueye Dany gis ay mbir yoo xam ne daal leeru ca bopp ba moom mu jël bagaasam dem yoonam ginnaaw gi ci la Khalifa Sall ak ñam àndal dem waxtaan ak Ousmane Sonko ñaan ko ba mu mujj del siwaat na ko Bougane dem na ñëwal te bu ñu waxantee dëgg Bougane mooy coow li moo andi problème bi yow seetal Bougane fale na wax ne couleur yi nga xam ne moo nekk ci biir coalition bi man sama couleur bokkul ci te fa cee war a bokk bàkk bi ak logo dugal ci sama yos Khalifa Sall ak ñam àndal maanaam waa coalition ba na ko xëy fa ñoo bëgg nga déglu ñu yow Bougane gis nga suñ couleur coalition bi logo beeg ñoom seen dara lañ ci soppiwut te kenn dugalut fi sa couleur su fekkee daal fa ngaa bokk fa ngay ñëw ñun te bàyyi ndax ay détail la su fekkee nag nangu woo ko xabal ñu demal sa yoon coow li jeex Bougane ne leen kon man maa ngi dem ndax d'accorduma ci ci source a Bougane Gueye coalition ba gars yi nag na ko xëy fii ngund du fi naan a ñeex info yéene kaay ne gars yi nag li taxoon ñu xamal seen ndaje ma mooy organiser waat wax règle yi nga xam ne la ñuy investir yi ak élection yi di ñëw yëpp ni ñu ciy bokkee fi mu toll nii fa ñoo fas dugg ci biir réew mi samp ci mboolem commune ak département yi nekk Sénégal seen candidat yi te mooy yéene kaay na ko voilà gis nga loolu nag soo moytul moo nar a andiwaat problème ci biir coalition ah, a wax dëgg gis ngeen coalition Benno Bokk Yaakaar ak coalition Yewwi Askan Wi ak yeneen coalition yëpp fi mu toll nii ci ay jafe-jafe lañ nekk ndax ku nekk mag naan man la faa war a nekk maire docteur Abdourahmane Diouf bi fi àndoon ak jamono ci réew mi Idriss Seck nee na ñoom bokkuñ ci coalition Benno Bokk Yaakaar bokkuñ ci Yewwi Askan Wi te duñ samp seen dënd ci local yi nay leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy na PDS boo moytuwul fa ñoo nar am mbetteel ci élection locale yi xam nga fa ñoo nar a aw seen yoonu bopp enquête yi ne kaay ne boo moytuwul nag fañ leen nar a ñu bëgg a awal seen bopp fa xam ay risque critique yéene kaay ne diggante Bamba Fall ak Ba xeex bu métti ñàkkante ca mairie bu Médina ci nar a xeex ak ay ministre am du kenn ku may njiit réew Macky Sall ah, yow seetal fa sàkk ñu contrôler mboolem ministère yi yorin bu jaar yoon moom la soxla Barthélemy Diaz mel ni ku naan ko fa nga koo yéexee askan wee ngi bëgg dee ak xiif réew mi métti naqar yi ba tax ci alerte yéene kaay moom Barthélemy Diaz mi ngi oo askanu Sénégal yépp ne seen doxub ñaxtu bi ñu war a amal ajjuma bii di ñëw ngir dund gu cher gi na Sénégal yépp génn nan dund gi fa cher naqarlu ko la ñu naqarlu ñoom ñu yëngatu ci wàllu tourisme mooy jafe-jafe yi nga xam ne xam nañ ko laas yéen a kaay ne am na ay hôtel fa ñoo tëj ak ñu doon liggéey ci ay hôtel fañ leen a dàq fi mu toll nii ndax mënatuñ leen a fay seen jafe-jafe yi nag li ko gën a andi bokk na ci corona bi ba tey laas yéen a kaay na voilà gis nga corona boobu sax mi ngi gën di deltu ginnaaw Sénégal démb fanweeru doomu aadama ñoo fi am corona ci réew mi professeur Moussa Seydi ne ñi nga xam ne nag gëmuñu vaccin wu corona bi ba pare fa ñu wax nit ñi naan bu leen dem vacciné ji ñàkku ji nee na ñooñu ay criminel lañ raykatu nit ndax soo gëmut tëjal sa làmmiñ nga toog noppi kenn forcé wut la waaye gëwuma te keneen bu mu ko gëm te bu leen dem ñàkku ji ku ko wax rek raykatu nit nga ci téem mooy yéene kaay mu yokk ca ne gis nga ñi feebar ci corona bi ba nekk ci diggante dund ak dee ci hôpital Fann ak boo ca jëlee téeméer juróom-ñeen fukk ya vacciné wuñ woon maanaam ñàkk wuñ kon ñi ñàkk wut lay gën a sonal nay leer la leer nañ ba mel ni jant tu su baar mooy na màggal ak ku tedd ki Serigne Touba ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru septembre bii ñu nekk ci lañ fas yéene amal 24 heures yéene kaay ñu ko xamal tàggat yaram Sénégal moo jàpp Congo ca biir dëkkam di ko mbuqi di ko mbuqi di ko mbuqi ba muy bëgg a dee ñetti bal ci benn Boulaye Ismaïla Sadio ñoo lakk caax ya tànnee fu di du monde bi la ni ki démb record yéene kaay ne gayndey gañe neen waaye nag biir yowuñ de stade yéene kaay mel ni ko naan ko déedéet gayndey kay démb kenn xamul leen wax gañe neen ak caractère nag ba pare jiitu seen poule bi sunu làmb yéene kaay di ñu xamal na juróom-ñetti fukki fan ak ñaar moo des diggante combat Balla Gaye 2 ak Bombardier si jamono jooju Balla Gaye turandooram génn na àdduna baayam génn na àdduna turandooram Balla Gaye 1 fa ko doon garde di ko xelal baayam Double Less fa ko doon xaar te moo nekkoon bras droit am Bombardier nag dem na kër ñoom Balla Gaye jaale ko baayam donte ñoo war a bëree loolu rafet la Mohamed Ndaw Tyson Bekkaay Mbay Tafa Gueye seede wi rafet ci Double Less def nañ ko ci biir yéene kaay bi li rafetul nag te ñaaw mooy ay député yu ñuy tudd ci wàllu trafic passeport diplomatique les éco yéene kaay ne député Mamadou Sall la ak Boubacar Biaye ci bokk yaakaar lañ bokk Macky Sall nag nee na yoon def liggéeyam teg ay daan képp ku ci dugal loxom foo bu yaanaa maar moom it lekk na coow de waa digi tegaat nañ ko loxo démb fa la fanaan moom nag fañ ko doon laaj waa ji mu wax ne fay jaay passeport diplomatique ci vidéo boobu nga xam ne moom lañ ko filmé ci oto ba ñu ne ko waa jooju mooy kan rek kilifa ja naqoo de réew mi yéene kaay moom di ñu xamal ne xam na benn waay mbënd mi ndox maa fees dellam këram mu mujj faatu ñàkk bakkanam ca biir ndox ma yëf yaa nga amee ca sam-sam 3 l'observateur moom it di ñu xamal ne benn soxna daal jëkkëram fa koy bañ a jox dépense wala boog lam koy jox doyut léegi ndaw si sàcc ci xaalisu jëkkëram bi cent dollars ngir dépensoo ko njaboot gi lekk ndekete yoo cent dollars jëkkër jëm sàcc foo biyee la xaalis bu bon gannaaw bu mu ko yóbboon ak di ko jaay fala lañ mujj nag jàpp jëkkër ja nga xam ne moo yor ay foo biyee yóbbu ko polis waa ma ne nar ngaa tëj lu sa jëkkër ndeysaan waaye moom tayut ko xamutoon na jëkkër ji foo biyee xaalis yu bon yi ci la nekk bu la joxoon dépense konoon lii yëpp mënoon na ko bañ a dal waaye na la wër na xay du yem ci bopp borom de jaajëfal leen mbokk yi ci teewlu bi fàttali leen li gënoon a fës ci bile jotaay xibaar ab l'accident bu métti métti amoon tey ji ci suba benn camion vidange euh, mbëkk benn borom jakarta mu daal di faatu ci sa si ca école Jalañ jokkoon nañu ak suñu ndaw di Assane Cissé sàccukatu nag ba ñu faatoon sa diwaanu Nioro coow la jeexagul kuréel ga jiite mbiru euh, càccum jur gi ñoom naka ña ngay woo groupe sunu gaal ngir rek mu bàyyi Adama Keita man ci teg loxo bu fekkee ni bëgg nañu jàmmi réew mi dégg ngeen ci Cheikh Tidiane Diagne ci woowle waxtu askanu Sahara ñoom ne la watuñu ba yandoor ndax tiitaangeeg njàqare ci fiilu ba fa ngelaw li daana loon keroog àjjuma ba tey ji ña ngay woon kilifa yi ngir leen ñu bàyyi seetaan gi te wut ci pexe laata moo juddee dégg ngeen ci a Ababacar Dieng yaa fàtt ay doomam bañ nañu bay wut ku leen bañ leen dootuñu nangooti ku leen noot ak kuy foowee seen alal taxawal nañu ab kuréel duppee ko alliance des leaders de Ndiafate dégg ngeen ci Noa Biaye école arabe El Hadji Abdoulaye Niass liggéey baa ngay dox na mu waree caabi daanu ko joxe weer ak décembre président Serigne Mboup ma ci dugal téeméeri